xam ni wax dëgg yàlla euh, yeyoon nañu ñu delloo leen jukkal ndax euh, li ñu fi liggéey bàyyi ko fi euh, ba tey moo ngi fi tegee ginnaaw Babacar ture nag xam ngeen ni tamit tiis dalaat na ci kaw presse bi wala sax lu ko jiitu muy génn àdduna ren Marie Faye ku ko wax nag xel yu bari day dem ci wolof ñu daal di itam ñàkkaat Kader Diop di beneen doyen boo xam ni macha allah moom itam li mu def ci presse mu ngi fi tege loolu nag ñu war ci waxtaan ak ak euh, suñu doyen Jean Meissa Diop euh, di ko nuyu doyen gërëm la ci disponibilité bi mm-hmm. euh, war a waxtaanee ñaar ñi ma tudd muy ñoo xam ni côtoyé nga leen ci métier bi mun ñoo wax ci ñoom ñu bari ci ñun xëy na xamuñu leen wala bi ñu leen di xam ak bi ñu fiy jógee peut-être yàggul maa ngi leen nuyu di la dalal jàmm d'abord ci émission Demb ak Tay di la gërëm ci disponibilité bi toujours pour rédaction mi FM doyen Jean Meissa mm-hmm. soxna Fatou Thiam Ngom moom li euh, lay jaajëfal aussi euh, ci kóolute bi ak confiance bi ak invitation bi. Hmm. jërëjëf doyen ni ma ko waxee nag presse bi ren moom euh, tàng na lool. Euh, macha allah waaw takkar naa seen trop ñu ñàkk fi ay hmm. kàngam. Euh, hmm. yoo xam ni ni ñu ko waxee keroog ak kon suñu beneen doyen ay icône la ñu woon. ñuy kon war a waxtaanee tey ren mari Faye nga liggéeyandoo ak moom ca Walf ñu wara a waxtaanee itam kii di Kader Diop ñoom ñaar ñëpp yàlla jël leen waaye. ñu def honneur aux femmes ni ñu koy waxee tàmbali ci ren Marie Faye Mbaye mm-hmm. loo ñu a mm-hmm. wax euh, ci jëmm jooju euh, Reine Marie day maa ngi ko xamee affaire njëkk a rencontré daal euh, ci Walfadjri mais avant Walfadjri xamee woon naa ko nii à distance ci liggéeyam RTS ak ci liggéeyam Sud FM mais Walfadjri vraiment la ñu xamante woon bu baax a baax a baax mm. parce que bokkoon nañ di liggéey Euh, bokkoon nañ ci bon temps bi ñuy def euh, waaj a samp rajo Walfadjri euh, ñoo defoon benn groupe de travail di auditionné animateurs yeeg journalistes yi yu yi war a intervenir ci Walfadjri alors ñoo ko bokkoon ak Ablaye Lam ak ci ci groupe de travail boobu sax la ñu recruté woon na ñoom eh, Bikaay mbay te ku mel ni Bikaay mbay par exemple ak ay ak ay yenn yeneen animateurs yu bëri yi nga xam ne xara ñu trop finalement. Mhm. alors euh, Reine Marie loo ñu mën a wax ci moom euh, ñu commencé peut-être ci côté professionnel bi bi nga koy séen ba bi ngay liggéeyandoo ak moom lan nga jàpp ci moom tey mën ñu ko wax euh, peut-être ak ñi ko xamul. alors bu ren mari commencé di parce que moom fi fi ñu ko njëkk a xam daal mooy euh, ci télévision mooy euh, euh, théâtre Daaray Kocc hmm. Daaray Kocc amoon na fa benn benn rôle di jouer rôle indicateur IP 18 rôle bi nga xam ne indicateur de police la hmm. war a comment on appelle ça encore arrêté loo benn avorteur. Hmm. ki daan def ay avortement yàq alors finalement ren moo nekkoon euh, moo moo moo jëloon rôle bi nga xam ne mooy indicateur de police bu waroon a. Euh, fexe ñu jàpp waa ji. ñu jàpp waa hmm. defoon na ko euh, rôle rôle bu mu defoon à merveille. kon dafa ko. Uh-huh. waaye dafa doon théâtre daaray Kocc. ok ah man ci li mu ci fi ma ko xamee. boobu ci waaw. après xamee ko si présent téléspikerine. Hmm. Euh, mooy euh, li ñu daan wax téléspikerine. mooy diggante ñaari programme télévision. Hmm. ki daan présenté naan annoncé bi bi programme jeex na. Euh, bi ci mooy tel wala duñu ñu mën a def programme bi ñu annoncé woon. Hmm. loolu moo woon euh, liggéeyu Téléspikérine mais tey liggéey boobu amatul poste boobu. Hmm. parce que euh, modernisation bi progrès technique yi tax na ba. Hmm. Euh, boobu am amatul amatul njëriñ bon amatul pertinence. Hmm. alors naka la jógee ci Téléspikérine boobu ba yegg si tey ci présentatrice vedette mun nañ ko waxee noonu. alors même avant. avant théâtre bi ak Téléspikin war nañu préciser que ne que ren euh, informaticien la woon formation informaticien ci lañ ko ci lañ ci lañ ko njëkk a tàggat informaticienne alors informaticienne yaakaar naa li mu liggéey bëriwul bu bu bu dee liggéey liggéeyoon na ci euh, après ci ci la fa jógee euh, nekk Téléspikin. alors jóge ci Téléfikarin euh, reconvertir wu ci ci journalisme alors ci journalisme euh, ci lañ ko gën a xam tout euh, surtout Sud FM Sud FM fekk boobu samp nañu rajo Sud FM ci la ren nekk journaliste présentatrice émission wala information ci langue nationale wolof. alors boobu ñu découvrir ci ki nga xam ne euh, foogeewuñu ko woon foofu ndax moom def def ci wane xarañte bu bu takku et puis ak euh, waxin bu bees bi nga xam ne daawuñu ko woon dégg mooy euh, wolof bi nga xam ne wolof bu leer bu wolof bu vraiment. accessible daal xaw li ñu daan dégg. Hmm. wala bu diis académique bi nga xam ne euh, il faut nga jege ki nga xam ne dégg na bu baax pour mu lay euh, mu lay ci gindi. Euh, tekkil li ñu wax waaw. waaye li ñuy wax ren nag ren dafa indi woon wolof bu bees ah wolof bi nga xam ne diisul mais wala bi nga xam ne aussi dafa woyofoon be du du wolofu caaxaan wala wala wolof wolof euh, bi bi bi ñuy dugal ay mots français wala moo anglais. Hmm. Mhm. d'accord kon moom daf ñu indi ci juste milieu bu de mën nañ ko waxee noonu. juste juste milieu. Hmm. loolu la ñuy wax ci ci digg bi daal. Euh, wolof bi nga xam ne. ki namp wolof sax. Euh, mën na ci ma mën na ko comprendre mën na xam li ñuy wax. man na xam li ñuy information bi di tekki. Mhm. ak euh, fu ñuy fu fu ñuy jëmee. Mhm. Mhm. kon mun nañu jàpp ne ren Marie dafa moom bokk na ci ñi valoriser bu dee du moom journal olof ci Sénégal. voilà je crois que parce que amoon na. amoon na wolof euh, gaa euh, amoon na ñi ñi daan présenter journal wolof mais seen wolof bi dafa xaw a wolof li ñu wax ci tubaab académique. xaw a wolof yu xóot. wu ay wolof yu xóot yi nga xam ne ku mel ni man ñi par exemple ku nampul wolof mhm. wala de wolofam leerul euh, munoo munoo comprendre euh, li muy wax waaw d'accord alors Reine Marie naka la jógee ci informaticienne parce que préciser nga sànq ne moom informaticienne la woon. waaw ah, a ah, ci loolu la ma waxoon. waaw ci ordinateur yi ci loo ci xam. Euh, ba yegg ci téléspeaker yi ndax loolu en fait dañoo euh, gis ci moom ay talent euh, yu tax wala moom moo bëggoon a dugg ci métier bi. waaw xam nga xam xam nga loolu la tubaab li wax mérite personnel. maanaam sa xarañ sa xarañ sa bopp. Ah mën a tax ba nga jógee ci information informaticienne euh, dal ci journalisme parce que ñaari métiers yi bokkul bokku bokkuñu ah nga mën a nga mën a jóge fii dem fële sans problème dem fële euh, ci journalisme ràññeeku fa def fa liggéey bi nga xam ne ñëpp ñëpp rafetlu nañ ko alors loolu moo woon ren man hmm. ren ren amoon na talent boobu d'accord am na solo alors euh, li hmm. ngeen dund ak moom ci Walfadjri moom Reine Marie Faye euh, lan nga ñu ci mën a nettali tey comme témoignage alors li ñu dund euh, Walfadjri bu dee bu óoru liggéey jotaan ren dafay def liggéeyam bu mot sëkk alors bu dee nag heure détente jot na waxtu détente diggante ñaari ñaari plage horaire par exemple information ren bon vraiment dafa indi woon atmosphère bi nga xam ne euh, ak cawarte euh, bi nga xam ne na ñëpp ñëpp ñëppay sawar hmm. ñëppay ñëppay ree hmm. ñëpp nekk mag rak ah jigéen ak euh, seen càmmeñ et cetera hmm. alors loo loo ren ren moo moo fa indi indi atmosphère boobu alors te atmosphère boobu ku xam rédaction rédaction presse liggéey journalisme nga nga war a xam ne atmosphère boobu baax na c'est-à-dire ku ku ko mën a créer aussi am na mérite bu rëy rëy rëy parce que liggéeyu liggéeyu journalisme liggéeyu presse stress la mhm. pression ak euh, vraiment euh, comment on appelle ça euh, je ne sais pas pression daal. Mhm. da liggéey ci pression. Ah, liggéeyu xel laaj na euh, laaj na nga euh, xaw a njaxlaf tuuti. Mhm. xaw a desserré wàññi pression boobu. Mhm. ba mën a def si liggéey liggéey nu mu waree. loolu daawul yàq dara ci liggéey bi. non da ah au contraire. daf ko doon kii sax daf ko doon amélioré. dafa gënoon tax nit nit ñi sawar. génn ci. tiit tiit tiit bi ci pression bi ci stress mhm. bi ah euh, comme ça pour mën a def liggéey bu baax mën ko deful baax a baax mhm. mën a dem li dem liggéey yi euh, plutôt que bon parce que boo boo boo génnee ci station bi mhm. euh, ci studio wala nga jógee ci salle de rédaction vraiment da ngay sonn ba ba dootoo dara. Hmm. alors boo génnee ci studio bi wala ci salle de rédaction bi euh, da ren mu mu def ba nga amaat cawarte. Hmm. cawarte ree et cetera. Euh, je ne sais pas tax. Hmm. kon kon aspect aspect comédienne bi peut-être euh, bi mu jëlee ci théâtre bi. transféré na ko non pas pas comédienne di reetaanloo nit ñi et cetera. ok mais. Euh, gën leen jox motivation. d'accord rassurer leen. Okay. Euh, je ne sais pas il est temps que nag de temps en temps. Mm. ñu euh, mu indi euh, mu wax li nga xam ne nit ñi dinañ reetaan. dañuy reetaan. waaw. Mm. d'accord alors kooku moo nekkoon Reine Marie fay ba tey ñu des ci moom lan nga jàpp ci moom côté ñu commencé ci profession bi d'abord ci liggéeyam ci xëy na ni mu ko daan doxalee ak yooyu loo xam ne. mun nañ ko tey jox ndaw yi ñu téye ko pour mun a doxal seen liggéey ba xëy na yegg fii Reine Marie yeggoon ndax bi mu génnee na wax nga ko ñëpp dañoo saluer professionnalisme am ni mu doon defee liggéeyam et tout donc soo ñu munee dikkal ci personnage bi wala personalité bi si si si côté boobu. alors perso personnalité Reine Marie surtout personnalité professionnelle lay wax de. Mhm. Euh, mooy ki nga xam ne c'est-à-dire boo gisee fu mu fu fu fu mu jógee woon ak fu mu yegg finalement ma da nga xam ne cest que toujours nga mën dara nga nekk dara mais et puis bon a changer jéem a avancer c'est-à-dire euh, góorgóorlu liggéey ba mën a évoluer cest que mais doo doo nekk dara rek wala doo mën dara rek yem ci c'est-à-dire da ngeen bëgg a dem seeti leneen. Mm, di améliorer dem seeti feneen améliorer toujours. c'est ça c'était ça Reine Marie bu dul woon loolu bu amul woon qualité boobu bu amul woon talent boobu bu amul woon xarañteef boobu du mën a jóge ci informaticien ak téléspeakerin ba nekk journal mi nga xam ne dafa dafa nekkoon royuwaaru royuwaayu ñëpp surtout présentation information euh, xibaar ci langue na ci euh, langue wolof alors euh, bu ñu jugee ci côté professionnel bi ñu wax ci Reine Marie en tant que nit nan la doon jëflante ak euh, yéen ñi mu nekkaloon lan aussi nga jàpp ci moom ci ay jikkoom yoo xam ni xëy na euh, mun nañu ko wax tey mu am ñu mu jëriñ wala mu am lu ñu ci jànge alors xanaa c'est-à-dire bu dee bu dee caractère wu Reine Marie jikkoom. da da da damay si gannaaw li ma doon wax léegi. ci cawarteem ak woye faayam boo parce que boo gisaan nag boo da ngay da ngay defe amul benn responsabilité te pourtant nekkoon na fa responsable mm. ah Walfadjri bon amoon na amoon na je crois que nekkoon na fa chef de desk chef de desk mooy chef de service mm-hmm. alors mais ren ni mu daan comporté woo ak ñi nga xam ne moom ñoo nekkoon ci autorité am Euh, mais gaawoo xam exactement si ndax ren mooy chef bi wala ndax keneen mooy chef am hmm. alors là aussi euh, c'est-à-dire baax na trop gis nga autorité hmm. boo ko bëggee nekk euh, il faut nga am personnalité certainement hmm. mais aussi il faut nga xawee tuuti ba ba ba ñu mën a jot ci yow. Mhm. en quelque sorte. Mhm. te loolu yëpp ren Marie amoon na ko. loolu ren amoon na ko. Mhm. moom boobu moom moom man sédd naa ko. alors sooy natt tey li mu apporté ci Walf gi nga xam ni fa nga nekk nekkoon fa ak moom euh, lan nga ñu ci mën a wax. Euh, mu nekk ci sélection sélectionné war euh, tax bu ñu recruter ñi nga xam ne ñëwoon ay animateur ak ay journaliste langue na ci langue nationale yi hmm. alors mais mais loolu euh, tax na ba bokkoon na ci li taxoon ñu naan Walfadjri Walfadjri école la c'est-à-dire que Walfadjri boo fa dugaan euh, da ngay da ngay ci école da ngay jàng mais finalement aussi da da nga da da da nga mën mën a bersa daala en quelque sorte hmm. alors c'est-à-dire ñu mel ni mari ñoo taxoon loolu cest à vraiment baax ci ci lu nga xam ci xam-xamam nangu ko seddoo ak nit ñi nangu ko partagé nangu ko yaatal ba ñeneen ñi jot ci. Hmm. Reine Marie moom xëy na bu weesoo dégg wolof gi bokk na itam ci li ko doon màndargaal euh, baat bi euh, nga xam ne daanaka kenn du ko jaawale ak benn. Ah, lu baat yi ah, bari bari oui ren ren parce que ça aussi cest à liggéeyu rajo wax rajo c'est-à-dire que normalement boo waxee fekk nga vraiment il faut nga am baat baat bi nga xam ne euh, c'est-à-dire que lay ràññee. dafay tax ñu gaaw la ràññee bi nga xam ne bon duñ ko duñ ko jaawatle ak ak keneen wala ak beneen voie alors te ren moo ren par exemple bu waxoon am na li li ñuy wax ci tubaab diction hmm. c'est-à-dire que bon amoon na ne diction présence à l'antenne présence à l'antenne mooy ki nga xam ne ki wax fii euh, kii wax fii ci micro bi wala ci antenne bi Euh, kii cest à li muy wax ak ni mu koy waxee euh, jaar na yoon. Hmm. c'est-à-dire que loolu loolu moo woon ren mari. da daan maîtriser li muy wax. ah oui maîtriser li muy wax et booy ci na mu koy waxee. d'accord euh, vraiment da dafay neex a déglu yomb a déglu aussi. d'accord loolu hmm. loolu ndax danga jàpp ne mayu yàlla la wala lu mu liggéey la moom ci boppam. ah bon may yàlla am na ci mais euh, comme ni ñuy waxee journal ni koy waxee journaliste euh, rajo yi rajo wala télévision par exemple euh, baat baatu télé ak baatu ci rajo c'est-à-dire que dañ koy tàggat hmm. ah mën na am mën nga gis ki nga xam ne cest à nu muy waxee baat bi dafay naqari ba nga xam ne mais doo doo bëgg sax mu mu jege micro. Hmm. mais mu commencé di entraîné wu di tàggat euh, baat dañ koy tàggat. ah oui comme ni ñuy tàggatee yaram mooy. naka lañu ñu koy tàggatee. ah mais benn loolu nag euh, spécialiste yi daal. Hmm. ñoo ñoo la ko mën a expliquer bu baax a baax a baax. alors mais baat dañ koy tàggat cest une voix. sa se cultive ça se forme ça s'élève euh, parce que am na ay li euh, nga xam ne euh, temps bi ñu ñuy ñuy jàngee CESTI par exemple euh, suñu professeurs yi enseignants yi ci diction wala micro dañuy da dañuy daan wax c'est-à-dire am na yi nga xam ne pour nga prologue il faut nga nekk ci benn seetu miroir. Hmm. alors di def geste di ubbi gémmiñ gi di je ne sais pas xamoon naka naka lañ koy waxee ci wolof daal. Mm. Euh, mais mais il faut nga daal nga tàggat ko. waaw nga tàggat gémmiñ gi. Mm-hmm. tàggat baat bi. à la fois. alors loolu certainement aussi ren jaar na fa mais euh, baat bi dafa neexoon tellement. Mm. ak euh, li muy wax dafa wóoroon et eh, eh, daf ci dëgëroon eh, daf ci xarañoon tellement. Hmm. que yaakaar naa ne tàggat bi daal sonalu ko woon tellement. ñu daal di jàll ci Kader Diop mi nga xam ne moom hmm. itam beneen taskatu xibaar la bu fi bàyyeekoo. Ah. Kader peut-être génération bu mujj bi xamuñu ko. mais yow ñàkkul jëflante nga ak moom euh, mu génn àdduna kon euh, ci ay bés euh, yi ñu génn 23 juillet 2020. waaw Ndakaaru nekkoon journaliste à la retraite nekkoon rajo Sénégal mujjee sax jiite bureau agence France Presse AFP. ci Ndakaaru muy wane ne moom itam am na yoon bu yaatu boo xam ni dox na ko ci métier bi. alors jërëjëf soxna kii Fatou Thiam Ngom c'est-à-dire Kader maa ko xam. ci 1999. Hmm. non 89. fekk man euh, journaliste bu ah ben jeune journaliste la quoi. Hmm. alors ñu ànd euh, ci benn mission reportage bi ñu doon wax euh, mission mission UNICEF moo ko organisé woon ci région de Tambacounda Goudiri alors boobu fekk man daan naa dégg turu Kader Diop. Hmm. mais xaw ma woon c'était la première fois mais may tase Kader fekk euh, temps yooyu la amoon liñu ñu daan wax prix Pierre Mille hmm. prix journalisme bi nga xam ne euh, grand prix c'est-à-dire que même bu ñuy wax euh, prix Nobel de la paix wala prix Nobel de ceci wala prix Nobel lele c'est-à-dire que lii li prix boobu pri prix Pierre Mille te ñi koy euh, jox les journalistes euh, yu gën a euh, xarañ ci la conférence alors prix boobu la Kader bon raaya boobu la Kader jëloon par exemple hmm. alors ci la bi bi àndee ak Kader ak ñeneen ak yeneen journalistes évidemment bi ñu àndee ci euh, kii euh, Tambacounda alors wër région bi di tourner ci biir région bi ma gën a xam Kader ñuy fanaan ci benn benn centre ak benn hôtel ah, di waxtaan di échanger ma gën a xam Kader gën ko naw euh, gën ko gën ko sopp en en en quelque sorte daal. alors vraiment am am amoon na lu bëri li nga xam ne jànge woon naa ko ci moom ba ci euh, euh, quelques années après hmm. ma gën a xamaat Kader euh, ma koy gis léeg-léeg di waxtaan ak moom alors bu mu nekkee président CRED conseil pour le respect de l'éthique et la déontologie hmm. mooy euh, moo jiitu li ñuy wax léegi correct alors Kader ma joxoon ko dossier mais dossier bi mu concerné woon su suñu journal hmm. alors Kader ne vraiment bëgg na ci bëgg na liggéey ci dossier bi mais fekk euh, CRED amul woon moyen Hmm. c'est-à-dire dañ ko dañ ko créé woon nii rek. Euh, te joxuñu ko moyen. alors ma xam ne ma dem ba ci kër Kader ah jox ko dossier bi mais finalement Kader boo gisaatee après di ko relancé di ko laaj ndax dossier bi mu toll mu ne mais vraiment euh, bon mu xaw mu xaw a gêné wu daal. Hmm, am kersa ah waaw. Euh, mais moom mais mais bëggoon na ci liggéey. Hmm. bugoon na ko examiner bëggoon na ci jël décision. Hmm. mais c'est que dafa amul woon moyen. dañ ko joxul moyen. Hmm. alors ci laa xam ne euh, c'est-à-dire que liggéey balaa nga koy mën def bu baax. dafa ànd ak ay moyen ñu jox la moyen ñu jox la je ne capacité bi nga xam ne. moo moo lay tax moo lay permettre nga def liggéey boobu. Hmm. alors Kader euh, bokk na ci li ñu ko waxal moom itam bi mu fi bàyyeekoo euh, fonk gi mu fonkoon éthique ak déontologie te daan ko fësal ci liggéeyam. Eh, loolu moo taxoon nag ñu joxoon ko crédit. Hmm. présidence bi alors euh, bu dee liggéeyu journaliste moom xam ko nangu ko. Euh, ak yeneen yeneen i exigence euh, yu journaliste euh, laaj Kader xamoon na ko depuis daan na ko pratiquer alors Kader je crois que man fi ma gisee gëj gis sax parce que finalement Kader dafa doon jàngale jàngale journalisme ci benn école bi ñuy wax EGICOM mm. la dernière fois man ma bu ma daal boobu laa gën a gis euh, ñu def euh, ñu toog ci benn jury di di évaluer di noter journalisme euh, mémoire mémoire fin d'étude étudiante malienne hmm. bu bu ñu waroon a diplôme hmm. alors jury bi nag liggéey jury bi moo moo waroon a tax ba étudiante boobu am diplôme te Kader moo nekkoon président président jury bi mm. alors def na fa liggéey bu takku bu vraiment si ngay xam ne euh, Kader Kader mi euh, vraiment journaliste et puis journaliste du du journaliste caaxaan quoi. Mm. Mhm. d'accord euh, formation aussi ak njàng intéressé woon na ko lool euh, te itam wax nañu ne nekkoon à l'aise aussi bien ci télé rajo ak presse écrite. waaw télé nag xawma ko mais je crois que man même rajo aussi euh, mooy li li li ma ci xam ni pas comme tout le monde quoi mm. c'est-à-dire que rajo Kader euh, journaliste rajo la njëkk nekk. moo nekkoon sa bu temps muy dugg agence française moo moo jëloon responsable écoute yi de la radio je crois que même même rajo Guinée et cetera moo moo moo daan déglu di fa jëlee ay information def ko dépêche agence agence française d'accord alors ñii ñu fi waxtaanee xëy na ak ñeneen ñi euh, ay yeneen mag aussi yoo xam ne ñu ngi fi des euh, tey boo méngalee seen euh, liggéey seen taxawaay ci presse bi ak bu ndaw yi tey yi lan ngay gis doyen Jean Meissa ah na ndaw yi nga xam ne vraiment ñoom tamit bu dee ci professionnalisme rek ci liggéey journalisme hmm. mën nañ ne que ñoom sax ay taxawaayu mag li ñu taxaw déjà ci bon ay ay ndaw lañu mais vraiment mën nañ mën nañ leen que vraiment ay mag lañu boo gisee seen comportement hmm. seen ni ñuy doxalee seen liggéey ci journalisme euh, te là aussi nit ku nekk journal bu nekk cest di war nga liggéey de manière à ce que nga nga bokk ci ñooñu ñooñu nga xam ne ndaw yooyu nga xam ne mën nañ leen considérer comme ay mag. alors euh, mag ñi nga xam ne ay référence la ñu tey euh, ba tax mhm. ñu jóge fii mais ñu yeyoo ñu di leen fàttaliku ku mel ni Babacar Touré ku mel ni Reine Marie Kader Diop ak ñeneen ak ñeneen euh, naka la ñu mën a def ba jeune génération bi jariñu ci seen xam-xam ci seen taxawaay naka lañu leen mën a jëmmaale je veux dire ba duñu duñu fi mus a jóge même si seen jëmm nekkatu fi ah c'est que nag pour euh, donc pour euh, nekk comme euh, Kader Diop wala Babacar Touré wala Red Marie c'est-à-dire que boo da ngay nangu jàng da ngay nangu déglu da ngay na nanga topp ay ay exemple journalisme ci li ñuy wax pour nga def ko bu baax a baax a baax il faut nga woyof humilité euh, parce que journalisme humilité wooy wooyofaay boobu bokk na ci qualité yi nga xam ne moom la ñuy wax ne le journaliste war am ah hmm. et puis nangoo déglu nangoo jàng boo nangoo jàng boo nangoo woyofal sa bopp mën nga nekk journal bu baax journal bu ràññeeku hmm. bu am tour tey mmh. euh, métier journalisme bëri na luñ ciy déplorer manque de professionnalisme ak yeneen yu bari yoo xamante ni euh, jàpp nañu ne mi ngi yàq euh, métier bi yenn kàngam alors yow loolu lan nga ci gis comme saafara. ah saafara bi je crois que dama yaakaar ne que mooy mooy li ma doon wax léegi c'est-à-dire journalisme il faut nga nangu jàng xoolee exemple ay royuwaay yi nga xam ne. vraiment mën na la avancer ci dara ci sa liggéey euh, woyofaay bi nga xam ne euh, mën na la tax par exemple bon parce que boo nekkee boo amee xibaar ta à dire de cest à avant nga koy euh, siiwal il faut nga seet ko seetaatandal ko et puis bon laaj nga bu par exemple mm-hmm. information bi nga amee Euh, confiné wu wala du dëgg mais di nga nangu ne il faut nga nangu ne information bi du du hmm. mu lu mu am am intérêt hmm. lu mu am euh, euh, importance ma da da nga nangu rek information bi du dëgg waruma ko fësal hmm. voilà exactement alors il, il faut que euh, vraiment euh, de de coup de goût en quelque sorte. Mm. cest à loolu rapport yooyu liñu ñuy la ñuy les journal war a am ak information. Mm. mais dëgg teel rek da damm na. Hmm. ça loolu du du qualité journaliste. Hmm. alors gis nañu aussi ñi fi jóge ñëpp kilifa yi ñu mës a jëflanteel dañ leen a naw nit ñi fi bàyyi aussi dañ leen am cër boo xam ne jox nañ leen ko ku mel ni Babacar Touré tey gis nañu ay chef d'état témoigner si moom Kader Diop aussi bi mu génnee àdduna gis nañu témoignage yi tout comme Reine Marie Faye alors mhm. ñooñu euh, lan moo leen mayoon euh, daraja boobu ñu amoon euh, si pratiquement kanamu ñëpp li leen mayoon foofu mooy professionnalisme rek c'est-à-dire jox finalement daf lay jox kilifteef c'est-à-dire booy def sa liggéey journaliste ñëpp xam ko ah ñëpp xam nañ xam na sa xam xam sa sa sa compétence sa comment on appelle ça professionnalisme mm. mais finalement dem dañ lay teg fi ñu la war a teg ah dañ le naw mais boo booy def journalisme ak caaxaan mm. euh, di wut ay euh, kilifteef kilifteef bi nga xam ne mérité woo ko yee woo ko euh, ay di wut privilège wala di alal mais finalement c'est-à-dire xëy na ñëw ma doo doo am alal de waaye waaye waaye doo ci am tur hmm. c'est ça doo ci am succès de. Vedettariat bi tamit euh, ku mel ni Mamadou Thior jàpp na ne bokk na ci li yàq tey presse bi. Vedettariat amoon njëriñ Vedettariat Euh, amul njëriñ parce que vedettariat c'est-à-dire am kii moo gën compétence hmm. ah compétence c'est-à-dire euh, nga nekk journal bu mën liggéeyam cest à il faut que même même boo naree nekk vedette nay nekk côté boobu vedettariat hmm. nga nekk na la sa liggéey par exemple naka sa façon liggéey hmm. Euh, def la par exemple def la vedette def la star ah, mais pas di tappale wala di je ne sais pas di ñaanatu xaalis fii loolu loolu garanti wul euh, succès professionnel. alors bi ñàkk aussi ci presse bi am na ñu jàpp ne moo indi euh, tey ñu gis yenn mbir yi ci ci biir métier bi. Euh, encadrement bi bon c'est-à-dire bon am na ci ñaari yu yu ma jàpp mooy encadrement euh, il faut faudrait que ki ñu war a encadrer ki ñu war a tàggat xam ne wala nangu ne cest à xamul yëpp am na lu ko manqué wala am na lu mu lu mu war a dëgëral te nangu ne ci loxo nit la mën a jaar. ah mais bëgg nekk je ne sais pas ñëw ci benn élection rek en deux trois jours def deux trois émissions wala def euh, deux ñaar wala ñetti article daal di commencé naan way euh, man vedette la et cetera euh, cest aussi yàq yàq na yàq yàq na ay journal bu bëri na leen hmm. alors encadrement bi il faut aussi encadrement ñi nga xam ne man nañ def encadrement et puis te nangu nañ ko euh, li ñu li ñu faral di wax souvent mooy ñu waroon a encadrer talik bi ñu yàgg ci yàgg ci rédaction bi dañuy dem euh, wuti ay carrières yu bees euh, ay carrières yi nga xam ne moo ëpp xaalis ah mais ça aussi c'est vrai que loolu am na am na ñi nga xam ne Euh, ay encadreur ay tàggatkat euh, journaliste euh, la ñu waroon nekk mais finalement dañu gis fi nga xam ne ay yeneen yeneen poste yi nga xam ne moo ëpp xaalis moo ëpp daraja dem ca bàyyi bàyyi rédaction bi bàyyi journaliste ndaw yi je ne sais pas mais là aussi c'est-à-dire que mënoo leen mënoo leen ko reprocher tellement c'est-à-dire que mooy rédaction yi ñoo war a def en sorte que euh, les journalistes ñu am expérience euh, mën a toog ci rédaction yi am li nga xam ne wala di di di fayeeku li nga xam ne mën na leen permettre ou bien motiver na leen pour ñu toog ci rédaction yi en cadre de journalistes yi bon parce que euh, journaliste quoi qu'il en soit loo loo compétent compétent cest dafa am fi ngay commencer c'est-à-dire mais boo nekkee débutant mais laaj nga par exemple ñu tàggat la ñu guider ñu gindi ba ba nga am expérience di di encadrer ñeneen. Mm. alors CNRA euh, nekkoon nga fa loolu tamit euh, mënuñu si bañ a wax. Euh, en tant que koo xam ne bokkoon nga ci kuréel googu. Mm-hmm. ban gis-gis nga am tey ci programme yi ak ni ñuy doxalee métier bi ak vraiment li nga xam ne mi ngi jugee ci organe de presse yi di dem ci askan bi. bon alors ni ñuy doxalee programme yi chaîne de rajo ak télévision yi man duma ci mën a sori. parce que bu ma jógee CNRA yàggul te waruma di di juger li nga xam ne c'est-à-dire que ñi nekk CNRA tey euh, ñu ci nar a wax alors waruma wax seen place alors moo tax euh, c'est-à-dire que dama ci war a maandu ba je ne sais pas ba ba ba mu def benn délai. ay quelques mois wala quelques années par exemple. waaw mais en tant que mais bon am na programme yu bëri ci ci programme yi nga xam ne bon war nañ ko améliorer jar nañ ko améliorer. Mm. d'accord Jean Meissa xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo bu fekkee am na loo bëgg a yóbbante jeunes journalistes yi relativement à ñi ñu fi waxtaanee aussi ñu eh, bàyyi la nga yóbbante leen ko kàddu yooyu. ah jeune journaliste daal mooy. Euh, li ma leen bëgg a wax ak li ma leen mën a wax mooy fonk leen seen métier alors jàngaleen ko bu baax pour metriser ko euh, c'est-à-dire moytu leen ñi nga xam ne euh, je ne sais pas dañ leen dugal ci ci li nga xam ne dafay ñaawal seen tur Euh, dafay euh, yàq seen réputation euh, même c'est-à-dire que la jàngal dara duñ la indi dara bon peut-être que moom mën nañ la indi xaalis wala mën nañ la indi ja mais ci naka su dul noonu en quelque sorte hmm. c'est-à-dire que loolu les jeunes journalistes là war nañ ko moytu war nañ ci dem ndànk hmm. war nañ ci maandu Mm-hmm. jërëjëf Jean Meissa Diop ñu ngi lay ah, gërëm amoon nañu maa ngi leen euh, euh, euh, émission Demb ak ah. ñu ngi lay gërëm di sant ok maa ngi leen di gërëm soxna Fatou Thiam Ngom merci allez merci kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Demb ak ñu doon ci waxtaane Reine Marie Faye ak Kader Diop di ñaari taskatu xibaar tamit yoo xam ni ay kàngam la ñu bàyyeekoo fi ñu doon leen delloo njukkal ni ñu ko defee woon ak ñi fi jiitu bokk ci Babacar Touré ñuy dellu ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla yërëm leen xare leen àjjana kon euh, muy ñoo xam ne itam def nañ fi loo xam ne jar ñu fàttaliku leen euh, daal di itam wax euh, la ñu xam ce ñoom ci wàllu liggéey bi surtout ngir baaxee ko ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk tey te bëgg tegu si yoonu mag ñi jóge fii teewul seen tur des fii Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi di gërëm jaawa jàll mi fare woon ci wàllu machine bi sant leen itam gërëm leen ci déglu bi dig leen daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen di leen ñaanal kendal ak